ndax dinañ jox ñi majorité. d'accord loolu loolu dañ ciy bàyyi xel aussi parce que ñoom ñoo fi dige woon ne woon Sénégal dañ koy changer en deux mois dinañu def lépp li nga xamante ni lépp li nga xam ne président defoon na ko dara baaxul. mais mais six mois est-ce que mën nañ cee changer mën nañ cee changer réew. mais des si sax dañu gisul sax des si Macky en dix-huit la commencé changer. dix-huit jours la commencé changé deux ans mu doog a lépp yéegaat non non non boo tegee njëkk yi fekk ak njëkk fu mu koy euh, am amul comparaison le pouvoir d'achat des Sénégalais a moom waa kër Macky moom ndëg moom waa kër Macky moom à fi ngeen fekk saako ceeb ak fi ngeen yóbbu saako ceeb fi ngeen fekk kilo suukar ak fi ngeen yóbbu kilo suukar fi ngeen fekk diw ak fi ngeen yóbbu dugub les moom mënoo leen cee wax non non non non Bokar njëg moom vous mal placé pour ngeen wax njëg bi ngeen di ñëw kilo mburu fu ngeen ko fekkoon bi ngeen dem fu ngeen ko bàyyi fu bi ngeen dem fu ngeen ko bàyyi cent soixante-quinze ah, ainsi de suite ainsi de suite bu demee ci ceeb bi tamit noonu fu mu toll Macky Sall di jël nguur gi ñaata la enseignant bi doon fayeeku je donne un exemple. non mais si koñ bi nag parce que l'enseignant ouvrier bi nekk si koñ bi nag non mais bi nekk si bi nappkat bi di. l'enseignant de mu doon fayeeku bi fi Macky di jógee. non mais yokku na. fonctionnaire yi ñaata lañ ci Sénégal. bul fàtte si si population 18 millions ñaata fonctionnaire lañ am la croissance aussi dafa connaître. non non bàyyi leen yooyu bokkar bàyyi leen li ngeen croissance bu Sénégal yëgul ngeen naan ñu croissance yëpp aussi mënoo mënoo ko comparer en 2012 ce que les Sénégalais vivent daf ko yóbbu ci 2023 croissance bu Sénégalais yëgul seen poste tamit bàyyi leen li ngeen di wax waay ça ce sont les opposants qui le disent d'accord Bokar foofu la ñuy foofu la ñuy desandi sax euh, nga nekk euh, euh, responsable politique APR foofee ca parcelle candidat à la candidature ci élection yi ñu daal di dëgmal pourquoi yéen le choix Euh, bokk ci biir euh, coalition boobee noonu di wàllu. waaw bon dañuy d'accord yeesal takk wàllu Sénégal mhm. takk wàllu Sénégal parce que bon en fait mhm. ñun ñëpp on de la famille libérale mhm. bu ñu demee ba les libéraux loolu dañ koy rafetlu parce que sa a toujours été la volonté du patriarche le président Abdoulaye Wade bi nga xamante ni moo indi le libéralisme déjà en Afrique encore que ni au Sénégal donc tey jii bu sa famille réunirée pour un objectif d'intérêt national muy imposer une majorité à l'Assemblée nationale au gouvernement afin que ñu pousser ko à ce que ñu am un gouvernement de cohabitation hmm. parce que la seule solution qui vaille tey si Sénégal fi mu toll ni mooy imposer au pouvoir en place une cohabitation hmm. te loolu cohabitation boobu lu koy mën a indi mooy que l'opposition am la majorité à l'Assemblée nationale donc cet objectif là mooy l' objectif bi nga xamante ne l' opposition dans sa globalité moom la ñu bëgg rawatina ci nag la famille libérale bi nga xam ne à travers wàllu takku Sénégal moom la bëgg. Mm-hmm. te mu nekk la volonté bu nga xam ne tey moo mën a sauver Sénégal moo mën a génne Sénégal ci ñi nga xamante ni tey au bout de six mois ba léegi xamuñu ban direction la ñuy jël. mais mais mais Bokar yaa ngi koy wax léegi. ngeen li ngeen bëgg mooy retrouvaille famille libérale. Mm-hmm. loolu am na solo dëgg la. waaye loolu dafa Amadou Ba moom mi nga xamante ne tey jii ber na langam ba ànd ak ay nitam yóbbaale ñenn seen ay ancien ministre ak ñoo xam ne nekkoon nañ fa ay maire ak ñu bëri ñoo xamante ne ñenn ñi sax ay journaliste lañ ñëpp ngi dem ànd jeeg Amadou kon actuellement sax ñu ngi naan est-ce que Amadou pàcc bi gënoon rëy ci Benno parce que allié tamit ñu ngi moom ñoom mu ci mel ni ñoom Moustapha Niasse ñoom Moustapha euh, parti socialiste am na ñu bëri ñoo xamante ne Amadou récupéré na ko lan moo des APR ak ban APR bi ngeen àndal ñan ñoo fa nekk ñoom ne mën nañ am dara ci législative yi. voilà posé nga ma une bon question mais seulement dafa am benn pàcc boo laal rek moo xam ne dama ci insurgé gis nga l'électorat du notoriété moo koy def da tudd say confrères journalistes mm-hmm. yu nga xam ne ñu ngi Amadou Ba ñooñu amuñu poids plume sax buñ ko mën a apporter électoralement lan la ñu mën a def wax ma wax dégg ci na lan la ñuy dégg. Madiambal mu ngi a ngi Amadou de. moo tax mu dem fekki Amadou Ba. Ah, lu tax moo tax mu fekki Amadou Ba non xam nga xam nga xam nga on veut pas trop se pencher sur des individus comme ça mais tous xam nañ ne ñii ñëpp ay immunité parlementaire la ñuy daw wuti mais ce qui se passe avec le régime ak la prédation foncière bi fi am dans ce pays là. am na ñoo xam ne tey jii bu ñu daawee dugg ci liste yi c'est pour chercher simplement une immunité parlementaire mais du pour préoccuper wu bi ki fa dëkk am na problème mu ndox wala am na problème mu lii wala lële donc euh, Amadou était des nôtres il a été un dissident te le président Macky wàccoon ak moom parce que defal na ko teraanga bu ne te aussi euh, l'élection présidentielle passée président Macky Sall moo financé tout moo ko jàppale c' est pour tordre le cou à ñi fi taxawoon dinaan président Macky Sall jàppale wu donc tey Macky kañ la génnee moyen yi bu demee bu demee bu demee Macky a été <laughs> candidat en bi muy génnee moyen boo fekk na Amadou loof na boobu campagne bi sori na ngeen bàyyi waa ba mu xoox ngeen doog a ñëw da koy jàppale vous êtes un partisan Amadou Ba xanaa non du ma partisan Ba <laughs> dama am ni vraiment dans cette coalition la moom mm. tamit bon comme opposant sax on dañ koy jox cëru opposant am mm. comme il a eu le courage de s'opposer te et puis démentir na ñëpp ñu ne woon defar ragal bu xat la mm. donc tey ji am na fitu ñëw di opposé wu loolu dañ koy saluer mais li nga xamante ni ñun duñ ko nangu te loo xam ne sax bon xam nga dans l'intercoalition sax am na zone yoo xam ne dugg na ci mu ngi ci kooku bon. Ah, mun nañ ko ménager waaw loolu bañam boobu tamit je pense que ni vraiment c'est pour mettre la forme rek mais on saura kii est ak ku mën dara du et parti sous la bannière de Benno Bokk Yaakaar candidat de Benno Bokk Yaakaar donc li mu am yëpp Benno Bokk Yaakaar moo ko ko jox. Mm. tey jii boo amee quelques maire yu nga xamante ni c'est dans des contrées du Fouta dans des communes yoo xamante ni xeebuma leen ko ci sax mais amuñu sax lu mat 1000 électeurs. ñooñu qu'est-ce qu'ils représentent c'est trop facile daw taxaw fii woote au King Fahd Place ñëw fii taxaw indi kii indi ñu indi des des des des élus ah, locaux yoo xamante ni yoo xamante ni. yéen kenn xamagul fu ngeen di taxaw fi ñu. ñun ñun ñu woote présenter le livre bilan du président Macky Sall. woote fële au niveau de la permanence et de mémoire. plus de un nit ñi nekk foofu dugg foofu ñu nekk foofu avant ñu dugg ci euh, élection yeeg yu ni mel. non mais oote bi nga wax moo tax may wax te ñun on avait convoqué les élus à la permanence d'ailleurs ñun ñoo convoqué woon le vingt le dimanche lui il voulait convoquer le dimanche mu aj bosam le mardi te les élus étaient là-bas nos élus étaient là te et puis une très belle rencontre. rempli à n'en finir moom laay wax sur rayon d'un kilomètre y avait tu voyais les gens à perte de vue président Macky Sall woote loolu loolu yëngu ko donc ñun vraiment vraiment dañ koy souhaiter rek bon vent e sans regret mais la force de Benno Bokk Yakaar l'APR nos gros cadres nos gran cadres sont restés avec nous. foofu boo fay tudd kan nga fay tudd. waa léegi yow foofu boo fay tudd kan nga fay tudd. ah Cheikh Omar Anne. waaw Cheikh Omar Anne dañ koy nangul njuumam googu mu dëkk. waaw Cheikh koy nangul jeex na léegi léegi. Aliou Aliou Sall. qu'est-ce qu'il représente. Aliou Sall qu'est-ce qu'il représente lan la fa représente. Ah, Aliou Sall mais Aliou Sall c'est Macky Sall qui l'a fait moo ko fi jox tout simplement la paire. Euh, la coordination départementale de Guédiawaye mu dem aux élections on l'a soutenu mu gagné jox ko et puis ça devait lui permettre d'avoir les moyens de sa politique bu taxawoon bu baax a baax xëy na duñ ko gagné fii Guédiawaye et puis en dehors de ça euh, euh, kii les autres là ñan nga fay tullim des journalistes ñoo xam ne ils n'ont que micro pour nekk fii di wax et ils toujours bercé sax d'illusion parce que tey jii man jàpp naa ne Ndeye Saly Diop Dieng Grand Dakar euh, Grand Dakar qu'est-ce que mais Ndeye Saly a qu'est-ce qu'elle représente là <laughs> qu'est-ce que mais ñooñu. c'est des gens yoo xam ne Macky Sall honnêtement dañu représenté dara en témoigne sax seeni ay résultats le premier ki nga xam ne représenté wul dara c'est Amadou Ba. qu'est-ce qu'il a gagné aux parcelles. c'est son bureau de vote daf ko gagné daf ko perte mais bureau de vote Amadou Ba da ko perte. sur 140 bureaux de vote aux parcelles gagné benn bureau de vote benn bureau de vote laa la wax un seul bureau il l'a gagné qu'est-ce représente en fait. la notoriété ne fait pas l'électorat c'est pas que dem ki nga fat place ñu importer des gens de partout da def des colossaux ci loolu ci mobilisation bi c'est ce qui fait l'électorat bu ñëwee seen liste bi pourquoi ngeen jël Macky Sall tête de liste yéen tamit te mu leer loolu loolu man dara si man mënuma taxaw ni ah, Macky mooy tête de liste wala mais wax nañ ko Macky mooy seen tête de boobu gisuma liste boobu donc je ne peux pas candidat à la candidature nga ci département bi wala ñu ngi préparer les élections législatives on a mm-hmm. confiance te et puis euh, il y a des zones que nga xamante ni on va les gagner on a l'espoir te et puis la population. di suñu <laughs> mën a gagner. dina caaxaan ñu du yomb de du ces yomb pour le pouvoir. c'est le pouvoir qui a. am ngeen si yaakaar ni bien sûr. mais bien sûr. Ah Hmm. mais xanaa mun na. yéen ban département yéen ban département ngeen xalaat gañ yéen ban département ngeen xalaat gañ ñun dañuy waxtaan ban département ngeen xalaat gañ. non non dama rek département bi xam da ngeen a amoon ñun gën a xam y a des zones que le jamais perdu mais yéen dafa am lu ngeen di fàtte. Mm-hmm. le président Macky Sall fait neuf élections. mosu si perte benn. mosu si perte benn. dites ban élection la Macky Sall def d'accord non Macky Sall. la a été perdue a été perdue c'est Amadou Ba. Macky Sall présidentiel rek nga ko mën a natte présidentiel kese. bu ah, législative day yeble élection législative day yeble non day yeble parce que yéen compte wala législative waaw mais day yeble mais day mais moom. depuis élection présidentielle yi élection locale yi toutes les élections le président a gagné depuis c'est un gagneur ñun on n'a pas on n'a pas peur. léegi moo tax moo tax ngeen def ko tëdd liste no loolu wóoruma Macky dina campagne dina campagne su loolu yëpp wóoruma mais de toute façon avec le président Macky nous on a confiance mhm. c'est notre leader et leadership am doy nañu mhm. te tey jii je pense que les Sénégalais ñu ngi commencer apprécier la différence d'accord parce que le président Macky Sall c'est l'homme de l'action mhm. te le pays tey le peuple sénégalais a besoin d'action or nous avons un pouvoir bi nga xam ne tey il a choisi de bavarder un bavardage boo xamante ne moom la nit ñi mënul xam ba léegi à quoi ça rime. d'accord d'accord merci Moustapha euh, dispersion boobu ñu gis ci APR Amadou Ba beru fële ñuy dem takk wàllu ak euh, PDS donc loolu lan la mën a jouer ci ci ñoom seen poids. non mais day day wàññi seen doole évidemment day wàññi seen doole surtout élection législative lañ jëm département yi raw gàddu la. Hmm. tey jii bu fekkente ne da ñëw fi mu ni Géejawaay ñoom ñii bu ñett Amadou Ba am ñeent. pouvoir bi leen jiitu am juróom da di raw te boo boolee ñett ak ñeent set la. Mhm. donc kon tey jii ce qui veut rek bu fekkonte ne dañoo def benn say dem amaana mën nañ gagné département boobu te noonu lay demee feneen ak feneen ak feneen pouvoir mën na leen rawee quelques voix daal di jël euh, nombre de députés yi nga xam ne ñoo nekk ci département boobu loolu moom ça a été toujours comme ça élection législative bu ngeen defee benn say ci département yi moo waral sax euh, léegi ñu indi euh, stratégie boobu di ay intercoalition maanaam pour bañ a tasaare seen ay voix moo tax ñu naan fii boo fi ñëw waaye intercoalition tamit stratégie la boo xam ne dafa may limite parce que ñëpp duñ ko comprendre parfois di nga ñëw fii ngeen di fi voté wi ak wàllu. Mhm. ñu demee ci yenn département yoo xamante ne di gis nañ ñoo xamante ne dañu fi Pastef lañ fi waroon voté ñu voté fa wàllu. Mhm. fii ñu ne wàllu lañu voté ñu war a voté fa Pastef. donc j'ai oublié le département am na foo xamante ne nombre de voix yi nga xamante ne moom lañ voté donc yooyu ay erreur la yoo xamante ne parfois mun na am ci biir intercoalition bi donc pour man lii doon seen intérêt te problème loolu du kese loolu la APR loolu du kese seen problème tey. Mm-hmm. parce que boo toogee ñu ne la ku ci mel ni maire mbuur bi Cheikh Issa Sall. Mm-hmm. dem na yoonam maire Malicounda bi nu mu tuddati sax Maguette Sène ñu ne la dem na yoonam ki nekkoon fii ci Mbaaw Abdou Karim Sall ñu ne la dem na yoonam. donc ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne choisir nañ jël seen yoon loolu yëpp dafa leen di affaiblir te ñoo ñëpp presque ñeneen ñi ay maire lañ am nañ ay base nit ñi xam nañ leen am nañ benn benn benn benn benn benn taxawaay bi daal di ber seen langue bopp loolu du def lu dul daal di eh, effriter li nga xamante ni moo di seen ay voix eh, malheureusement bu ñu amul chance loolu mooy doon seen premier adversaire bi nga xamante ne après dañuy pare ñu ne force APR yëpp boo leen plussoon nañ am 100 pour cent waaye malheureusement mënoo ko plus parce que kii jaar jaar ni kii jaar na le kële jaar na le et loolu euh, bokk yaakaar naa ne bokk dina bokk si li nga xamante ne mu leen nar a doon sonal leen di sonal ci élection législative yi ñu jëm. d' accord merci beaucoup euh, Moustapha daan nay am solo jëm ci li nga xamante ni moom moo di dispersion bi ñu nemmeeku ci diggante yi euh, nga xamante ni moom moo di biir APR boobu. donc mais mais Badara. Uh-huh. bëggoon bëggoon naa laaj tamit Bokar. division boobu ñoom ñu koy gisee. parce que su fekkente ne. Mm-hmm. ñi mën limal nii léegi te am na ñeneen ñoo xam ne sax jël nañ seen yoonu bopp dem. léegi naka ngeen di def ak ak. ñooñu nga xamante ñoom ñëpp ay duñ ko tuddee démission parce que ba tey ñu ngi ci parti bi mais dañoo jël seen yoonu bopp. waaw loolu man dama jàpp ni du ñu affaiblir sax tout au contraire. parce que euh, c'est d'abord ñi nga xamante ni président Macky Sall moo leen joxoon les moyens ba ñu mën a implanté wu. Mm-hmm. mais c'est tous des militants du président Macky Sall euh, en général. c'est courant dans la vie d'un après la perte du pouvoir certains xëy na ñoom. vont quitter le l'exercice du pouvoir tey jii gisuñu pouvoir gisuñu seen bopp gisatuñu dara ils ont préféré prendre la tangente loolu ñu ébranlé mais c'est le pouvoir en place qui doit craindre. Mm-hmm. parce que le pouvoir en place a risque suprême d'aller seul aux élections législatives. Mm-hmm. loolu tamit nan lañ koy suffisance la. Mhm. loolu suffisance la wala c' est une manière aussi de montrer que ni ñoom ils ne veulent pas aller avec mhm. la coalition mhm. donc tey vraiment vraiment c' est le pouvoir en place qui moom ñoom la ñu war a est le pouvoir en place la ñu war a tijjal mais ñun en ce qui nous concerne vraiment vraiment vraiment ces défections là de nos dara dara au niveau de la coalition te au moment où par les directions de la part de certains de nos camarades. Mm -hmm. On a un grand parti qui est le PDS. Mm -hmm. C'est allié à nous. Mhm. te loolu vraiment PDS allié wu fekk si ñun loolu ñun ñun koy rafetlu. c'est un plus un grand plus. boo xam ne daf ñu daf ñu daf ñu fekk si. Mhm. foofu la ñuy tamoo tax. bu ñuy relativiser ñi nga. xam mais mais ban période simili moo ñëw période simili dagg na ñoom ñoom Doudou Wade ñoom Woré des nañ ca kër ga. des cadres du PDS c' est des. pontes du PDS mais la plus grosse partie du PDS mi ngi ak hmm. de. de. au niveau de Fun City boo ñëwoon teewee fekk foofu. vraiment le PDS dans sa globalité ñoo ñëw. Hmm.

taxuñu seen dem mënul impacter dara dara dara ci dayo PDS parce que au niveau de Fan bi ñu lancé la coalition la vraiment nous avons retrouvé la partie essentielle et importante du PDS ñoo ñëw rallier cette coalition la président Macky Sall rafetlu ko ñun ñëpp ñu rafetlu ko parce que c'est une coalition utile et qui fera très très mal Euh, loolu non non mais bien sûr évidemment. yéen PDS kan moo fi mën a gagné fii. évidemment dans l'intercoalition passée le PDS avait combien de députés. non PDS xam nga li mu amoon nag. Euh, ah mais attendons d'abord fa mu duggoon la nag PDS fa mu duggoon la nag. on verra. Euh, PDS PDS jamono ji faut pas oublier que le PDS a exercé le pouvoir waaw waaw mais diggante bi beaucoup d'eau a coulé sous les ponts loolu tamit bu ñu ko fàtte beaucoup d'eau a coulé sous les ponts waaw le PDS n'était pas aux élections présidentielles en 2017 bu ko fàtte waaw eh, donc PDS PDS PDS PDS boo kat PDS dafa des bëreetul de. ah déet c'est vous qui le dites. PDS mais natt bu ñu ko ci élection yi mu def nii. ah baax tasaaroo mu tasaaroo nii. très très bonne coalition qui est là. et qui qui fera vraiment des émules. ça moom nous on a confiance. Ah, on verra avec la stratégie que le président Macky mettra en place ak la ak les hmm. du PDS je pense que ni vraiment. on a confiance et on va gagner. on va avoir une majorité. d' accord merci beaucoup Bokar euh, Moustapha fekkee amatoo beneen question boo koy posé. merci pour euh, ñu daal di tëj donc dañ lay bàyyi nga rek tàggoo ak mbokku internet yi. waaw di remercier Bokar Diongo ci waxtaan bu am solo bi nga xamante ne sekkoon nañ ko ak moom waxtaan bi neex na lool di ko jaajëfal ci disponibilité bi ak euh, jotaay bi ñu seexoon di la remercier yow tamit ci waxtaan bi nga xamante ni ñu ngi ko animé am na solo. di jaajëfal ñëpp ñu doon teewlu di leen jox rendez-vous lundi incha allah euh, merci beaucoup. merci beaucoup euh, Moustapha ah, donc bokka ñu daal lay bàyyi nga daal di euh, tàggatoo ak mbokk internet yi. oui mais Alioune Bara vraiment merci beaucoup di leen remercier ci plateau bi di remercier Moustapha effectivement waxtaan bi neex na trop le temps est parti très vite te di remercier seen professionnalisme aussi bien